billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamina wassalaatu wassalaamu ala alhaadi al amin seydina muhammadin almakin wa ala alihi wa ashaabihi ajmaina ixwat al imaani wal islaami wal ixsaani wal iraadati assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki M Media Group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 ci weeru sell wu tedd wi ñu nekk weeru barkeel wi di ñaan yàlla subhanahu wa lépp luñ ci jaamu rek mu nungul ñu ko te fulal ñu ko bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa lépp luñ ci def ci ay rëcc rëcc ci ay njuumte mu jéggal ñu ko baal ñu ko bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ñu jël niyoo boobu rek ak ziar bi di teg ci loxol kilifa gi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jotal ñu ko mbooleem mbokk yi ñu bokkal liggéey bi eh, eh, ñaan yàlla loolu ñoo defal tawféex loolu ñoo dimbali loolu ko jàppale ba lépp li mu yéene liggéeyal islam rek yàlla defal ko ci tawféex ba mu jàppandiku ko mu man ko dañu ànd ko moom bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon tey laaj yi nga xam ni moo fi ñëw yi ci jëkk mu ngi jóge ci mbokk mi di Mouhamadou fay Sindiidi ñu ngi koy ndokkeel bu baax di ko ziyaare sëñ Mudu Faye Sindiidi dafay laaj lu jëm ci e, jàng alxuraan ak bismillahi rahmaani muy saaru mel ni suuratu baraati wala suuratu tawbati nga xam ne dafa amut bismillahi mu ne saar ku koy jàng dem ba ca biir nga taxaw dagg ko maanaam agut nga ñëwaat bëgg àggale des ca aaya moom suuratu tawba boobu dangay wax bismillahi rahmaani rahim wala déet waaw loolu lañ koy wax dañ ko naan min aadaabi tilaawatil quraan almuxaafazatu ala xiraatil min awali suurati siwa suurati tawbati aw baraati dañ ko naan boroom xam-xam yi dañ ne bokk na ci teggini jàng alxuraanul karim saar wooy jàng nga tàmbalee ko bismillaahi ba mu des suuratu baraati wala saar woo ñëw suratu tawbati ñaari tur yëpp moom lañu koy tuddee nañ daal saar way jàng nga tàmbalee ko bismillahi rahmaani rahim waaye suratu tawbati kenn du ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim amma fi asnaai suurati falaa yataakkadul ityaanu bil basmalati wa takfi al istiaazatu dañu nag bu fekkee ni yeneen saar yi nga xam ne tàmbalee nañu bismillahi rahmaani rahim soo ko dee jàng ba ca biir nga taxaw ñëw bëgg àggalewaat saar woowu ñoom boroom xam-xam ne nañu jarut ngay wax bismillahi rahmaani rahim waaye man nga wax rek aawzu billahi mina sheytaani rajim daal di continuer loolee desam ca saar wa nga àggale ko kon li ñu dégg foofu rek mooy suuratu baraa am yi daal walla ñu koy tudde sóorat tawbati deesu jàng bisimillahi rahmaani rahim ca tàmbali ga waaye ca biir saarawa itam kenn du ca jàng bisimillahi rahmaani rahim ndax amu ko jëm tàmbaliwu ko looloo taxit dañuy bañ ku dem ba ca biir nga di ko ca wax muy bisimillahi rahmaani rahim ndax yeneen saar yi am bisimillahi rahmaani rahim sax nenañ la soo koy tàmbali mën nga wax bisimillahi rahmaani rahim waaye boo demee ba ca biir nga dagg ko ñëw bëgg koo àggalewaat sax na doo wax bismillahi rahmaani rahim waaye da wax auzu billahi mina sheytaani rajiim rek rek di continuer ak gële la des ca saar wa beneen laajam bi ci topp ba tey sëriñ Muudu Njaay Sindiidi day laaj xukmu dalilil insaan ala makaanin yoomalu fiihil xaraamu ba tey Modou Faye mi ngi laaj ne lan mooy àtteeb kiy tegtal nit ci béréb boo xam ne bii dañ fay def lu araam maanaam ku jëm ci béréb boo xam ne bii dañ fay def lu araam te xamut béréb ba fan la mu ñëw laaj la ko lan mooy àtte bi nan nga war a def mu joxe ci misaal ne béréb boo xam ne bii dañu fay kart yaakaar naa la wax përi foot la xaw ma béréb nga xam ne yii dañ fay carte ak di fa naane sàngara ak di fa def yeneen yoo xam ne yu araam la daal mu ne ku ñëw laaj la béréb boobu ndax am nga sañ-sañ wax ko fa béréb ba ne wala déet loolu itam lañ ko ci wax dañ naan faqad xarama xamra alxamra wal maysira nañu xam ne lépp loo xam ne lii sàngara la ak lu xeetoog sàngara ak carte ak lépp loo xam ne lii dafa xeetoog carte yàlla da araamal ñoom ñaar ñoo bokk ab mooy dafa araam ndax yàlla mu ne yaa ayyuha allazina amanu innama alxamru wal maysiru wal ansaabu wal adlaamu rijsum min amali sheytaani fajtanibuuhu laalakum tuflihun yàlla dana yéen ñi nga xam ne ñu gëm xam ne sàngara ak carte bant yooyu ñu doon samp di ci waat ak di ci giñ ak di ci seet ay mbir ci jamono yi ceddo ya jamono yi ba nekk ci yéefar ya ak euh, xiram yooyu ñu jaamu dana yooyu yëpp mu ngi mel ni sobe la soo xam ne sii mi ngi jóge ci seytaane kon ne leen loolu na ngeen ko moytu ngeen ngeen mën a am ak pexe kon daal loolu muy laaj muy ku laaj fu

muy tegtal kenn ci béréb boo xam ne bii euh, dañu fay def lu araam lu neexut yàlla dañ ne fa ida xarama allahu taala shay'an xarama taawun alayhi wal musaadatu ala fialihi bi ay tariqatin kaana haza taawun aw tilkal musaadatu dañu ne yàlla lu mu araamal day araamal ñu dimbalante ca ak jàppalante ca ci anam gu mu mën a doon rek ci wàllu dimbalante ak jàppalante ca loole nga xam ne yàlla da ko araamal ngir mu am ne nañu loolu dafa araam ndax yàlla dafa wax ne wa taawanu alal birri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwani wattaqullaaha inna laaha shadidul iqaab yàlla na ne na di dimbalante ci lu baax ak ak ragal yàlla waaye bu leen di dimbilante ci loo xam ne day waral bàkkaar ak ak noonu da ngeen saxoo ak ak ragal yàlla te xam na yàlla ku metti ay duma la ku tar mbugal la kon gis nga boroom xam-xam yi aay bi gis nga ni ñu ko tafsira mooy lépp loo xam ne lii yàlla da ko araamal rek day araamal ci jullit bi mu cay dimbali kuy def loola moo xam anam goo ko mën a dimbalee te nit ki bu xamul béréb ba ñu defalu lu araam la mu laaj la ko nga tegtal koo wax ko ba mu dem ca kon dimbali nga ko ca mooy yàlla googu muy dem kon daal loolu warut ab jullit ab jullit daal euh, buñ ko laajee boo xam ne dañ fa defee lu araam na ca maandu bu mu ca jéem a tontu sax su ko mënee ndax dane wal xaaidatu inda ulama shari al wasailu laha ahkaamul maqasid boroom xam-xam yi dañ ne euh, euh, lépp loo xam ne lii aw yoon la boo xam ne bi nit ki da koy teg maanaam lu ne na daal euh, jumtuwaay muy comme nga tegtal nit ki dara wala nga jàppale ko ci dara ne ne loolu maanaam lañ ca jublu rek maanaam mooy doon ak teba maanaam bu doon fekk ni danga yor ak warukaay masalan euh, di ca def ay nit di leen jëme ci bërëb boo xam ne bii bu ñuy moy yàlla ne ne jumtuwaayu jamono jooju maanaam foofee nga jëm atteeb euh, la fa nekk moom lañ lay attee maanaam jëm béréb bu araam la nga yor sa warukaay gi ci jëli nit di ca yóbbu nee nañ kon jamono jooju béréb boobu nga jublu jëm ca atte boobu lañ lay tegal bu fekkee ne da leen di jël di leen yóbbu ci béréb yoo xam ne yu baax la nañ fa amee lu baax it jamono jooju foofu ngeen jublu nu jëm fa atte euh, foofee ngeen jëm lañ wala ngeen fay defi moom mooy tege kon kon daal boroom xam-xam yi dañ ko tënk ci ne fa kullu ma addaa ilaa wujudil xaraami wa awsala ilayhi fa huwa ne ne lépp loo xam ne lii nit ki da ko def mu jur mu sabab loo xam ne lii lu araam la waaye tamit bu fekkee ne da caa àggale kenn ba mu def lu araam loolee ne ne moom moomu loolu mu def lu araam la ne ne kon laa yajuusu lil muslimi an yuujada fi makaanin yuusa allahu fii illa illa mudarran ne nañu daal benn jullit du yenn ci moom du dagan ci moom ñu koy fekk muy nekk ci béréb boo xam ne dañ fay mooy yàlla wala muy tegtale kenn bu fay dem lu dul ni dafa mënta ñàkk dañ ko caa forcé ba fitna ju rëy rëy rëy nar ko caa dàpp wala ay loraange yu rëy rëy wala ay juusu an yaddulla alayhi ahadan waru caa tegtal kenn itam muy dem jë béréb boobee ndax ne fa axla fa axla shay'in indal muslimi diinuhu ne ne jullit di gën a seer ci li mu am mooy diineem fa yajibul muhafazatu alayhi ko defee diine jooju ne ne danga ko war a sàmm sa kemtalaay kattan ci say wax ak say jëf ak say waxtu ba saa su ne ngay nekk ci loo xam ne lii yëfi jullit la di wax waxi jullit di def yëfi jullit te ci des nga moytu ko yeneen laaj yi ci topp sëriñ Aliou Badara Ndiaye oustaz moo ko fi yónnee ñu ngi koy ziara di ko ndokkeel moom it day laaj lu aju ci wàllu asakay muurum koor loolu ko wolof di waxe muy muurum koor muy bu nee ba woor ba koor gi bëgg a jeex wala bis bu mujj ba asaka maanaam sarax boobu ñuy génne ngir di ko joxe mu ci laaj ñu kan lañ ko war a jox ak it euh, nan lañ ko war a génnee ak buñ ko génnee ci jamono jamono lañ koy war a génne kon dañ ko naa xukmuha al wujubu wa waqtu wujubiha xurubu xurubu aaxiri yawmin ramadaana aw fajru awwali yawmin min shawaal bu ñuy xool daal koor ab àtte mooy lu war la waaw dafa war dañ ko war daa war jullit bu nekk su wooree mu génne muurum koor waxtu wi ñu koy génneet ne ne mooy euh, bés bi nga xam ne bii moom mujj ci ramadaan bu jant ba soyee walla fajar ak bés bi nga xam ne bii moo jëkk ci weeru kori wi waaye tamit am na ci borom xam ñu ne ku ko man bu koor gi desee ñaari fan wala ñetti fan it maanaam mën nga koo génne maanaam teel gee génn gi sax moom lañ ci gën a taamu wa dalil wujubiha ma rawahu cheykhaani an ibni omara radiallahu anhuma xaala farada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama zakatal fitri saan eh, alal abdi wal xurri wal dakari wal untha wal saxiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuadda qabla xuruji nnaasi ila salaati ne na li ñuy tegtaloo muurum koor dafa war mooy xaddis bi nu ñaari nettalikati xadis yi wax muy ash-Shaykhaani muy muslim ak buxaari yi ne nañu jële nañ ci ibnu omar radiyallahu anhuma ibnu omar wax ne seydina muhammad ne ne asakaay muurum koor dafa war jullit bu nekk maanaam muy ak nattukaay goo xam ne bii buñ ko nattee ñaari kilo lay doon ak ab ci li ëpp ci yow gox bi nga nekk lañuy dunde ca nga koy génne moo xam ab ceeb la wala dugub wala mboq wala daa yow fa nga nekk daal la ëpp ci lañuy dundee euh, nga génne ko muy bopp bu ne maanaam nit ku nekk ñaari kilo ak ab gis nga ne ne dafa war Euh, jaam bi ci jamono ji ak njaam di am noonu waaye tam dafa war ki nga xam ne ki gor la dafa war góor ña war jigéen ña war war gone ya euh, war mag ña ñëpp daal maanaam la làmbale ca ca gën a mag ba ca ka ca gën a tuuti daal ñépp dañ ko war a génne su waxtu génne jotee donte dafa am liir boo xam ne bii judd na ci bés boobu sax daj yi daal di bokk waaye tamit na ne waxtu nga xam ne nii moo ci gën ngir ñu joxe ko mooy ñu génne ko bala ñoo dem julli ji julli ka waxtu génn asaka daal euh, mooy bala ñoo julli ji julli lañ ko war génne ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ne koo xam ne ki génne na asaka ja maanaam génn na muurum koor doog a dem julli ji julli ga nee bu boobaa muurum koor lay doon waaye ku xaar ba julli ji julli ko ayit ga ba ñëw doog a génne muurum koor nee ab sarax la kon eh, loolu wax ne boo ko génnee bala ngaa julli ji muurum koor lay doon waaye boo julli jee ba ñëw doog koo génne sarax lay doon dañ ci dégg ne eh, kon foofu taxawaayu mu doon muurum koor moo gën moo ëpp yool moo ëpp tuyaaba ci bu fekkee ne ab sarax la kon euh, la mu wax rek muy génn ga daal mooy bala ñoo julli ji lañ ko war a def ndax euh, bu ñu dem ca saar wa ci alxuraan karim dane xad aflaxa man tazaka wa zakara sma rabbihi fa salla dane daal la ca gën lépp gën a baax daal mooy nga génne muurum koor moomu doog dem na julli ji julli ko nga xam ne bii moom lañ ciy julli muurum koor moomu nan la war a toll mooy miqdaaruha saaun ay xawaale isnayni fasil xamsa kilogramme min xaalibi xóotil baladi nu muy toll nag mooy waxan naa ko fee mooy kenn ku nekk ci ñi ko war a génne mooy dangay génne ñaari kilo ak ab liibar ca la ëpp ca la ngay dunde lañuy dunde ca gox ba nga xam ne bii fa nga nekk bu la neexee itam ne nañu mën nga ko xayma ab xaalis génne ko jox ko ñi nga xam ne ñi ñoom ñoo ko moom maanaam ñaari kilo ak liibar bu dee dugub la nga xayma ñaata la doon bu dee ceeb la nga xayma ñaata lay doon ci xaalis bu dee leneen itam man tuxuraju anhu ci ñan lañ koy génnee baaxal nañ ko fee mooy yuxrijiha almaru an nafsihi wa an kulli man talzamuhu nafaxatuhu min zawjatin wa walidayni faqirayni wa awlaadin zukurin ilal buluuxi xaadirina alal kasbi wa inaathin ila duxuli zawjatin ñii ku ci nekk warnga nga asaka mooy nit ki da koy génneel boppam ak képp ko xam ne ki maanaam moo koy jox ab dépense yow mi nga xam ne wii da ngay jox ay nit ay dépense ñooñu ñépp yaa leen war a génneel asaka moo xam say soxna lañu ak say ñaari waajur su fekkee ne dañoo nekk ay faqiir mënuñu koo génneel seen bopp ak sa doom yu góor yi yaa leen koy war a génneel ba kere ñuy majeur mat màgg mën a liggéeyi waaye tamit sa doom yu jigéen yi yaa leen war a génneel asaka ji feek ñuy am boroomi kër ba ca toppaan muy masrafuha ana ñan lañ koy jox tuuta li xurrin muslimin faqirin tuuta li xurrin muslimin faqirin kiñ ko war a jox daal euh, ni ko borom xam-xam yi tënke ni mooy koo xam ne kii ab jullit la boo xam ne bii ku ñàkk la maanaam moom lañ ko war a jox kon daal ci tënk rek lu jëm ci wàllu murum koor muy waxtu ak uh, atte baak kañ lañ koy génne daal uh, mooy lii ma fi tënk nii ci nañu ko boroom xam-xam yi jàngale fiqh uh, jàngale muurum koor it ku ko génnee mën nga ko joxeel sa bopp su la neexee soo xamee ña ko yoyoo waaye tamit bu la neexee mën nga koo jël jox ko sa imam bu fekkee ne yow fi nga nekk fu am imaam la man nga ko jox imaam ba mu xool ña nga xam ne ñu ñoo ko mu jox leen ko ndax foofu it lañ fa gën a jublu dëgg-dëgg ci jox ko imaam bi mooy imaam xañ na dina am ñoo xam ne ñi duñu xaw a man seen bopp te léeg-léeg ñëw di ko diis seen bopp itam muy ci xam daal ay secret yu bare yoo xam ne xañ na ñeneen ña duñ ko mën a xam bu ko defee bokk na ca euh, li tax daal ñu ne mën nga ko jox imaam loolu ci la bokk su ko defee ñoo ñooñu nga xam ne ñi xam na leen ñu koy diis seen bopp ci wàllu woowu bu boobaa mu mën a jël asaka jooju jox leen ko waaw suñu fàllu na ngeen def mbay nañ ci jàmm ñoo leen di dellal ziar bu baax a baax di leen bal xaq di ñeen ngeen yàq laaj boobu ngay laaj muy wàllu koor gi loolu moom day yàq koor koor moom bu ñu xasee jàpp moom lépp lu ñu lay dog moom bu jàllee ci sa biir rek day yàq koor googu bu ko defee bés boobu moom danga koy continuer waaye day doon bés bu ñuy war a fay moom loolu day yàq njàpp ndax ndox jàll na moom bu jàllee moo xam yaa ngi tey wala teyoo ko wala da koo fàtte ba def ko yooyu yëpp ñoo ci yem daal day yàq koor gi daal da koy da ngay jàpp bés boobu continuer te bu woor koor gi jeexee mu doon des boo xam ne bi koo war a fay dañ koy fay waaw baax na jërëjëf waaw mbokk moomu di laajit wàllu soxna soosu gis regal ci bëccëgu weeru koor euh, jigéen bu weere bu wooree mu gis regal boobu day yàqu day wori maanaam koor googu jàllatut dog su gi jàllee mu fay ko jigéen bu gisee regal ci bëccëgu weeru koor fekk na doon woor koor googu jàllatul day yàqu na da koy bàyyi maanaam day dog di lekk ka naan te bu koor gi jeexee da koy fay ci bis yi muy war a fay nag lay bokk da ko war a fay beneen laajam bi ci toppaatit muy ki woor ba ci diggu bëccëg mu sonn lool la wax mu dog nan lay demee waaw bu fekkee ni dafa sonn dëgg dëgg dëgg dem na ba góor góorlu la muñ na waaye coono ba bu sonal na ko ba mu bëgg a loru dañu koy may mu dog waaye bu koor gi jeexee day fay benn fan rek waaye nag na doon loo xam ne ni métti na lool lool ba mu yëg ne na su continuer di woor mën na caa loroo su booba lañu koy may mu uh, dog koor gi jeexee mu fay benn fan waaye nag su doonee loo xam ne li mënees na ko muñ nag góorgóorlu nag ba mën a woor bés boobu mu jàll Euh, duñ ko may mu dog ngànt daal moom lay am lu wéra wér loo xam ne li leer na nañ ne su continuer woor ak loraange gu mag mën na ko caa dal ñu di ko dog a may bés boobu mu dog ko su koor gi jàllee mu fay ko da koy fay day bàyyi bés boobu te bu koor gi jeexee mu fay ko soxna Fatma Ndiaye ñoo ngi lay de delloo ziar di wax amin ci ñaan yi yàlla yàlla nangu ñaan yëpp te boole ñu ko barke Seex Xadim biit xam naa daa bokk ci laaj yi nga xam ni xañ na yi ma yéex a seetlu la loolu moom it mel na ni dafa xaw a yéex a dugg waaw soxna si loolu mi laaj comme julli googu moom jëm tànk bi lay métti moom euh, lañ ko waxan ci fatwa booba rek noo mën a jullee julli daal moom sa cëri moom bu ci mënut noo nu mu nungu rek nga xam ne noona nga mën a def du métti ci yow rek ba nga julli noona ngay jullee waaye moom cër buy métti wala wopp soo xam ne si garaaw du wopp sax maanaam du tax nga bàyyi julli julli moom dañ la moom loo ko mane loo ko mane rek bu fekkee da ngay too ba dem ci tëdd sax xam nga julli moom de jéem dañ ne dem na ba ci tëdd léegi moom amatul bàyyi waaye yoway xool su tànk boobu daal noo mën a def noo xam ne nii mën nga naa def te du ci biir julli gi nga def ko noonu te julli waaw tànk bi daal bu mu la teree julli moom fekk yaa ngi am pexe moo xam ne am na noo xam ne boo ko defee du métti da ngay julli waaw noo mën a def ba julli rek tànk noo ko mën a def rek ba doo yëg julli métit bi ci biir julli gi rek noonu nga koy def daal di julli kon loolu yàlla na yàlla doole defal taw bi yokk jay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ذاك يودا وهو ذاك يودا